Omar Seck maa ngi lay nuyu. voilà ñu ngi leen Omar Seck nga nekk secretaire général bu euh, force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation euh, ñu lay laaj ci kuréel gi tuuti lan mooy sansam lan moo taxoon ngeen sos ko. Ah, xam nga dañu ni force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation le renouveau de l'éducation maanaam mooy gis-gis bu bees bu ñu am ci jàng ak jàngale parce que dañu jàpp ni. école bi plus muy dox plus muy dem ci kanam àdduna di soppeeku tamit dañu war a xool nu ñuy def ba changer suñu ay doxalin pour mën a jël en charge li nga xamante ni mooy defi tubaab di ko wax défi mooy li nga xam ni moom la ñu war a def ci jamono bu ci nekk ak anam yamu waree mu méngook jamono <coughs> loolu nag gis nañ ni dafa sooxee moo ndax ñu samp kuréel bi daanaka ñi ngi yëngu ci Sénégal gi yëpp inspection yëpp am nañ fa ay représentants et que li nga xamante ni nii mooy suñu bëgg-bëgg mooy ñu xool naka la ñuy def ba am ay programme yu ak ay solution yoo nga xamante ni nii suñ ko daw doxalee ci biir école bi dina changer doxalin bi ba nga xamante ni nii lépp loo nga xamante ni nii enjeu la ak problème la dinañ ko mën a dindi Euh, saafara ko ci ni mu gën a gaawee ak ni mu gën a euh, méngoo ak jamono. loolu moo waral ñu créer syndicat force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Euh, ci mars bi la ñu jëm dinañ def li ñuy wax élection de représentativité euh, syndicale yéen uh, kuréel gi ngeen nekk est-ce que d'accord ngeen ci élection yooyu waaw wala déet ak tamit ci anam bi nga xam ni moom lañ koy defee. Euh, syndicat euh, euh, bi ñu jiite muy FNR musul d'accord ci élection yooyu parce que benn gis nañ ni secteur de métier yëpp am na ay syndicat santé am na syndicat soo demee ci yeneen secteur de métier yëpp am na ay syndicat mais pour pourquoi autorité bi décider ni que ci éducation rek la ñuy def ay élection de représentativité syndicale donc loolu dañoo jàpp que ni. Euh, dañoo bëgg a puqar ñi ci ñun droit bi ñu am pour mën a participer ci négociation collective yi parce que Sénégal réew la moo xamante ni dafa signé les conventions de l'OIT OIT organisation bu mag la boo xam ni mi ngi ci Nations Unies moom moo ëmb képp kuy liggéeykat ci àdduna bi dañu am ñaari convention yoo nga xamante ni benn bi ñu ngi ko tuddi convention quatre-vingt-dix-sept boobu dafay wax ni liggéeykat bi am na droit à travers organisation syndicale bi mu bokk participer ci négociation bépp boo nga xamante ni état bi mi ngi koy woote beneen convention bi nga xam ni mooy convention quatre-vingt-sept boobu moom dañuy liberté syndicale ça veut dire liggéeykat bi bu ko neexee mu xool syndicat bi ko doy mu dem bokk ci mais ni ñu tëralee élection de représentativité yi dafa mel ni état bi daf ñu bëgg a wax ni bàyyi leen syndicat yi ngeen nekk ngeen dem bokk ci syndicat sangam ak sangam moom mooy syndicat yi représentatif te représentativité syndicale boo demee ci àdduna bi yëpp ni ñu ko définiré critères yi ñu ko jox bokkul ak critères yi ko autorité sénégalaise yi jox parce que en France boo fa demee sept critères la ñu définir mais boo dee xool. affaire wu nombre effectif maanaam ci dayoo bi syndicat bi toll ci militant yi mu am daanaka critère boobu mi ngi ci juróomeelu position donc am na presque ñeenti critère ci juróom-ñaar yoo xam ni moo jiitu par exemple syndicat bi lan lay proposer ci problème yi système bi di am ak naka lay def pour investir wu jàppale état bi ci mission loolu lépp ay critères la yoo xam ne dañ ko définir mu bokk ci représentativité syndicale par exemple musuloo dégg benn organisation syndicale fii mu def benn programme boo xamante ni c'est pour euh, jàppale jàngalekat yi jàppale enseignants yi euh, je veux dire élèves yi jàppale parents d'élèves yi ci nan la la ñuy def ba tëgg citoyen bi nga xam ni moom la ñu war a am donc euh, loolu noonu lañ jàpp ni moom moo gën a doon fulla que bëgguñu méngale comme ak parti politique yi nga xamante ne ni ay nit rek la ñuy wut ku ci le ay nit pour yow yaa gën a ëpp dayoo donc loolu ñun jàpp nañ ni euh, du critère bu baax moo tax ñun ci principe ak valeurs yi ñuy défendre première session bi bokkuñu deuxième session bi aussi principe yi taxoon bokkuñu ci premier bi ba léegi mi ngi fi moo tax ñun élection yi mars yii nii vraiment FNR décidé wul participer ci d'autant plus que cette fois-ci sax autorité bi daf ñu exiger ni dañuy def vote électronique vote électronique boobu nag wóoluwuñ ko parce que jàpp nañ ni dañuy pare ñoom ñu tànn seen ay organisation yi ñu bëgg ni ñi ñëw représentatif te ñun bu boobaa duñ ci mën a am benn moyen pour euh, diingat loolu ñu am benn moyen aussi pour vérifier la fiabilité de ces de ces de ces de euh, ces choix voilà loolu moo tax FNR décidé bokk ci élection mars yi comme ni mu bañe bokk ci élection yi. voilà fiñ ñu toll nii ñu gis ni am na ci ay élèves yoo xam ni ñu ngi yëngu-yëngal comme sax li am ca euh, département bu mbuur li ñu bëgg moom mooy ñu xoolaat euh, programme scolaire bi nuñ ko moderniser parce que nee nañ dafa diis et dafa yàgg daal loolu loo ci xalaat euh, monsieur Seck. waa xam nga loolu day dañuy fekk si rek ci li ñu wax léegi mooy doon suñu ay bëgg-bëgg ci système bi parce que tamit école bu dee dafa war a méngoo ak jamono plus ñuy dem jamono di soppeeku te ñëpp gis nañ ni jamono bi léegi dafa soppeeku réseau sociaux yi ñi ngi fi ñi ngi yàq xel yi ak xalaat yi ñi ngi orienté xale yi ci loo nga xamante ni bokkul ak suñu aada bokkul ak suñu gis-gis bokkul ak suñu identité je pense que école bi war na taxaw ñu xoolaat naka la ñuy def ba tëggaat yeneen programme yoo nga xamante ne nii day méngoog jamono programme bi nekk actuellement ci système bi mu nekk le programme officiel depuis 1979 lañ ko lañ ko tëgg ba léegi moom moo nekk ci école bi c'est le décret 79 1165 du 20 décembre 1979 programme boobu donc am na quarante quatre ans ñeent fukki at ak ñeent donc loolu daanaka day mat genn wàllu siècle donc programme bu dox dox dox dox bay bëgg a àgg ci genn wàllu siècle te jamono bi di soppeeku ñëpp constaté ko donc jàpp nañ ni war nañ ko mën a xoolaat xool nan lañ koy jooyantee loolu nag maître yi ak FNR ci boppam yàgg na ko kaas yàgg na koo teg comme euh, revendication mais kenn dégluwuñu woon ren nag li ci gën a garaaw mooy dañoo gis ni école dafa tàmbali composition yi tàmbali élèves yi partout au Sénégal yemul rek Mbuur presque dans toutes les académies même Thiès gii ma nekk di élèves yi ñu ngi kaas loolu ba fi mu ne nii eh, composition yi dañ ko bëgg a toxal donc loolu problème la xam nga ku ci nekk yaa xam sa mat mattilal comme niñ ko wolof di waxee léegi nag segam élèves yi nga xam ne ñoom ñooy jàng doon ay tuut tànk Euh, nekk ci seen jamono xam li xew ci seen jamono ñoo dem ba gis ni programme bii ñu leen di jàngal méngoowul ak jamono bi ñu koy kaas alors loolu je pense que autorité bi war na ko jël xam ne lii euh, yitteem la war a doon mu woote woote képp ko nga xamante ni acteur nga élèves yi enseignants yi partenaires yi parents d'élèves yi ñu toog ci table ñu xool naka la ñuy def ba trouver ay solution yoo nga xamante ni dina jooyanti loolu mais nag autorité bi loolu nekkul préoccupation li préoccupation mooy tenir ay élection de représentativité syndicale féewale ñu jaxase ñu alors ba nga xamante ni moom li mu bëgg a def dina ko mën a ànd di def ak ñaar wala ñett ba setti syndicat loolu nag FNR d'accord ci loolu FNR du ci musa d'accord parce que lépp loo nga xamante ni nii day jaxase jàngalekat yi xàjjale système bi FNR du ci bokk waaw euh, beneen laaj euh, comme ci wàllu modernisation la ñuy wax ba élèves yi si boppam di ko laaj euh, fi ñu toll ñu ne Sénégal am na pétrole am na gaz exploitation balay yàgg dinañ ko tàmbali est-ce que xalaat ngeen tamit tàggat ndaw yi ci métier yi nga xam ni dafa laal ci wàllum pétrole ak gaz. loolu même ku dul yëngu ci jàng ak jàngale war nga xam ni loolu lu ñu war a mën a def la parce que comme ni ñu wax léegi jamono day changé léegi gis nañ ni pétrole am na fi gaz am na fi ak yeneen i enjeux mi ngi fii c'est des enjeux de développement crise yi ñu dal ci suñu kaw dañoo joge ci Covid dal ci guerre Ukraine loolu lépp affecté suñu développement affecté suñu doxalinu réew donc loolu dañ ko war a jël en charge léegi nag yemul rek ci ay métiers parce que métier nit moo koy def gestion aussi des patrimoines nit moo koy def nit ñi lañuy jël di leen fal ay directeur ak ay ay ministre ak ak lu mu manti doon donc nit koo nga xamante ni moom mooy liggéey li war a doxal réew mi nit kooku ci boppam lañu ñu war a tax tabax ba pare l'homo sénégalensis ñu xam ban citoyen lañ bëgg parce que loo am am am am am xam-xam te bëgguloo sa réew suñ la joxee responsabilité doo ko doxal ni mu war a doxee ci intérêt réew mi moo tax ñu ni la construction citoyenne dafa war a doonaat xamante ni dañ ko war a dugal ci ci biir njàng mi et puis mu am ci dayo bu mag moo tax ñun force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation proposé na autorité bi ministère de l'éducation depuis presque trois ans benn programme bu ñu tuddee sous le drapeau sous le boobu noonu moom mooy tëggaat citoyen bi nga xamante nii moom lañ bëgg mu bëgg réewam bëgg askanam xam moom mooy kan xam li mu jomb parce que tamit lépp question de euh, yar la ak euh, doxalin donc loolu buñ ko deful mooy ëllëg lu ñu mënti def tamit te amuñu citoyen bu baax amuñu citoyen bu bëgg réewam amuñu citoyen bu am compétence yi méngoog jamonoom c'est sûr que développement du am moo tax loolu dafa fekk si vraiment ñun li nga xam ni moom lañ yàgg a kaas mooy que école bi war nañ ko xoolaat li nga xamante ni nii ñu warees na ko joyanti ñu joyanti ko en deux mille dañu defoon euh, benn projet boo nga xamante ni presque en deux mille quinze yooyu lañ ko généraliser muy le nouveau curriculum de l'éducation de base curriculum de l'éducation de base boobu xaw na changer tuuti quelques disciplines mais boo dee xool ñu jàpp nañ ni discipline yi ci ëpp solo ñu ko daan wax éducation morale daan ko wax éducation civique boo dee xool daanaka dañ ko dañ ko soofantal ci éducation ci ci système bi actuellement ñu ngi ko tudde vivre ensemble ak vivre dans son milieu vivre ensemble ak vivre dans son milieu boobu boo laajee jàngalekat yépp dinañ la wax ni mooy discipline yi gën a jafee enseigner parce que autorité bi li nga xamante ni jumtuwaay la ak programme ak ay item yu ñu war a jàng daanaka amu ci alors moo tax nag jàngale ko day jafe pour rejoindre tout à l'heure li may wax que nit ku normal citoyen bi ñu bëgg la ñu war a xool nan lañ ko war a tabaxee ba pare loolu dafa war a doon yittey képp koo nga xamante ni yaa ngi ci école bi mooy xam parent d'élève nga moo xam autorité étatique nga moo xam enseignant nga moo xam élève nga donc fekk si nga ñu ci li ñu ñu wax mooy que changement am na dañoo war a changer de paradigme comme ni ko tubaab bi di waxee parce que diggante boobaak léegi mille neuf cent soixante dix neuf ak léegi quarante quatre ans moo fi jàll lu bari changé nañu fi donc dañoo war a changer ni ñuy jàngalee dañoo war a changer aussi contenu yi élèves yi nag li ñuy wax naan dañoo war a alléger wàññi programme bi naam man na nekk dëgg mais tamit changer programme bi ça ne veut pas dire que dañ koy wàññi forcément alors mais lu ci mënti am rek dañoo war a woote ñu toog xool li nga xamante ni nii lu ñu war a beesalaat la lu ñu war a joyanti la ci ni ñuy jàngee ak ni ñuy jàngalee bon ñu ñu doxal ko ci déggoo ñu tënk ko teg autorité bi validé ko mais loolu nag nekkul préoccupation autorité bi moo tax véritablement ñun am na njàqare trop ci année scolaire ren bi parce que dañ ni bëri jàngalekat yi déggoo leen ñu grève élèves yi cette fois ci ñoom ñooy grève. voilà kon euh, Omar Seck Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waa ñu ngi leen di gërëm yéen tamit rafet lu seen liggéey bu baax a baax. may fàttali yow yaay njiitu secrétaire général bu euh, force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. jërëjëf soxna si merci beaucoup. jërëjëf soxna